بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين امتثالا لقول الرب سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sukkandiku ci waxi sunu boroom subhaanahu wa taala ju màgg ci jeexintalu suuratu zaariyaat mu ni fàttalil yow aji fàttali ji ndax fàttalikat dina jariñ ku gëm yàlla diglee ngoog mooy fàttalil kon képp ku am lu mën a fàttali na ko fàttali boppam fàttali ko ay mbokki jullitam fàttali dafay jariñ ku gëm yàlla ab digee ngoog digge bi mooy bu ñu fàttalee képp ku gëm moom war nga caa mën a jariñ fàttali gënta matale al fàttali ci alquran ndax alquran kat mooy téere bi suñu borom wàcce ci ñun pour nu mën cee defaru di ko jàng di ko seetlu di ko seetantal ñetti laayaa ngi yoo xam ne insha allah ci fàttali gu gaaw ñu amoon yéene nafar ko nafar gu gaaw rek jàpp naa ni balaa ñu koo génn nun moom danañ ci gis suñ bopp borom bi di wax ci suuratul xasri ci bu muy tagg ñetti kuréel ya nga xam ne ñun moom wax dëgg yàlla mënunoo góorgóorlu ba dab leen waaye nag beral nañu ci asru borom baa ngi wax ci suuratul xasri baada aoudu billahi samii alalim min alsheytan irajim min hamzihi wa nafxihi wa nafsihi للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ñetti aaya googu yoo xam ne mbokk yi bu ñu ko seetloo de gëm naa ni kenn ku nekk ci ñun mën na cee gis boppam bi ci njëkk suñu borom di bàkk di kañ gaa yooyee nga xam ni ñoom ba lislaam yegsee ñu nekk màkk bañ fa dundub diir gis ni yëf yi bëgg taxawal fii du fi sottee fitna yi leen di teg mën naa dem ba génn ñenn ñi ci seen diine te falan tabax seeni kër fala seeni baay nekk seeni yaay nekk léegi mu def mu des sauver sama pas-pas ak sàmm sama dëkkuwaay suñu borom mu ni gaa yooyu nga xam ne ñu ñàkk lañ woon ba pare uxriju ñu génn leen min diyaarihim te seen kër yi ñu nangoo tabax sa kër ba mu yegg ni ko fa ñukk fas yéene koo perte ngir dabu ji sa diine wa amwaalihim seen alal yi am na ko xam daf doon commerce mu tëj magasin kii marché ba doxoon na ci moom mu bàyyi ko kii amoon na fa ay bien mu bàyyi ko fa waaw ñii ndax li ñuy def est-ce que ànd nañoo sago mu ni waaw ànd nañoo sago kay ndax yabtaxuuna dañ doon sàkku fadlan ngëneel min allahi fa yàlla wa ridwaana ak ngërëm dañu bëgg ñoom même buñ ñàkkee cëri àddina yi buñ demee suñu borom ñu am fay cër ah wa yansuruuna allaha wa rasulahu dimbali yàlla ci diineem di dimbali ab yonenteem ci woote bi moo leen jaral ñu bàyyi seeni alal seeni baay seeni bien seeni doom seeni kër sunu boromu ne ulaayika gis nga ñii humu saadiqun ñii ñoo ñu dëgg ñu sérieux ñi maanaam boo doon wër ku dëgg koo xam ni bàyyi na dëkkuwaayam bàyyi alalam bàyyi njabootam bàyyi ay biam bàyyi ay magasin ah li nga xam ne tey mooy koom-koom doomu aadama biy jagal àddinaam ci li bët gis nga nang ko faa bàyyi am na ñoo xam ne ay millions la ñu amoon wallahi alazim bàyyi ko fa ndax am nañu sago ànd nañu ak seen sago ohun kay dara dalu leen ndax yabtaxuuna fadla min allahi wa ridwana yàlla bu la jaralee maanaam mën ngaa def loo xam nit ñi dañuy foog ni lii mënta nekk sunu borom ne ulaayika ñii humu saadiqun mooy ñu dëgg ñi jàpp na ni njàng mu rëy mun mën a gisee suñ bopp ngi foofu ci nit ki ndekete diine mën na koo jaral loo xam ne buñ la ko waxee nga weddi waaye nag foofu moom mënuñoo muus ak mu cet ba bokk ca ndax wees na walladina ñëwaat xam nga walladina lil fuqara walladina gaa ñi nga xam ne tabawwa'u daara waaw ñii moom dëgg la def nañu effort waaye ak ñi nga xam ne nag tabawwa'u daara ñoo dëkkoon madina wal imaana toogoon ci seen ngëm yàlla di xaar ah والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم بلا جلد يكسي يحبون من هاجر إليهم يجي أم بليزير أك بغ بغ بغ سين مبوك يكسي نن نيو bi ñu yegsee ñu séddoog ñoom seeni bien kee ngëm yàlla moo ko jaral mu bàyyi ay bien yàlla fayee ko mu fekk waa joo xam ne nangu naa ubbi ay bien pour nañ ko séddoo mu ni wala yajiduna amuñ fii sudurihim ci seen dënn xaajatan benn naqaru xol mimma uutu ci li ñu jël di ko jox gaa yi nga gis koo xam ne nañ dafa woo ñaari jabaram ndax yéen façon da doon jël kenn ci muhaajiruun yi boole ko kenn ci wàll ansaar yi yow da ngay woo sa waay bu ñëw xam nga sama ñaari jabar yaa ngi nii tànnal jëlal diw nga takk ko tànn ci ku la neex moo ko gën a jafe ñaar ñëpp jafe nañ waaye sama ñaari soxna yi fase naa diw takk ko bokkul ak tànnal koo ci gën a bëgg nga takk ko loolu bokkul lii moo gën a foor te ñoom loolu lañ defoon sama ta ñaari tool a ngi nii jëlal bii man ma jël bii sareet yi benn laa fi am waaye nañ ko bokk su ma xëyee nga gont ñu séddoo seen alal yi ak seen njaboot yi ak seen kër yi wallahi ñu wàcc seen lal yi jox ko gaa yi te defuñu ko ngir ñàkk pexe ndax laa yajiduna fii sudur ndax xam ngeen ni luñ la nettali la yàlla nettali moo koy gën a wér wala yajiduna fii sudurim xaajata mimma uutu liñ doon joxe amuñ ci benn benn ay plaisir sax lañ ci doon am fa wa yu'thiruna ala anfusihim da ngay génn ci sa waxande li nga gën a bëgg jox ko sa mbokkum julit ndax lam bàyyi walaw kaana bihim xasaasa donte am nañ ci bëgg-bëgg suñu borom mu ni gis nga lii nag ku ko yàlla dimbali ba nga yegg fa fa ulaika humul muflixuun ñoo ñu taxe ulaika humus saadiquun ulaika humul muflixuun booba it wax dëgg yàlla mënuñoo fexe ba bokk ca waaye nag suñu borom bàyyi na suñu wàllu ñun mu tegaat ci walladina gaa ñi nga xam ni jaa'u min baadihim dañoo ñëw ci seen ginnaaw kooku nag ñun ñii ci lañ kon aaya jooju defe naa lañ gën a mën a gisee suñ bopp ñett ñaar ñeem jàll nañ moom wax dëgg yàlla mënoo caa bokk waaye bi nga mën a bokk xoolal foo ca toll yow walladina gaa ñi nga xam ne jaa'u min baadihim dañoo ñëw ci ginnaaw saxaaba ya yaquluuna ñu ngay wax naan rabbana yow sunu borom igfir lana jéggal nu wali ixwanina alladina sabaquuna bil iman gaa yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci mbir ba mu yegg si fii yàlla jéggal leen mbokk yi nun ndax danañ jékki-jékki ba mu yàgg saxaaba ya taabi'un ya ñi ci ginnaaw di leen beral ñaan ban bis nga mës a julli uniquement boo xam sa sujjóot saxaaba yi nga doon ñaanal wala taabi'un wala kenn ci borom xam-xam ya gën tàllal loxo nga mës a def boo xam ne ñoom nga doon ñaanal da nga jàpp ne suñu jàkka yi ni mu simple nii te kay bantiloo di di mu ñuy ëpp micro yi jot affaire yi mel lu woon nii de tolloon nay jamono yëf yi gaa yi garab la goo xam ne ñun ñi ngi lekk meññ bi di xàqtaay ci doon garab gi waaye xamuñ la ko roose dereti ay nit comme yow ñoo ko doon roose ndax ñoom ñoo doon joxe seen alal ak seen deret di ko roosee garab gi ba garab gi màgg tey meññent bi ñun moom la ñuy witt moo tax bu ñu amul sens nag ñoo ci nar a gën a ñàkk cër ndax neex neex ba lañ fekkee yàlla jéggal nu jéggal sunu mbokk yooyu waaye wala yajiduuna fi sudurihim duñ am ci seen dënd yi xaajatan benn mbañeel ah ah wala tajal fi qulubina bul def ci suñu xol yi xillan benn mbañeel lilladina amanu yéen ñi gëm yàlla waxuma saxaaba yi kese ñi gëm yàlla ñëpp mbokk yi benn jullit du bañ mbokkum jullitam jullit du bañ mbokkum jullitam sa mbokkum jullit mu gëm yàlla kooku yàlla da koo bëgg est ce que yow boo ko bañee xool nga li nga def maanaam bañ ko yàlla bëgg wa wala bañ lu yàlla bëgg loolu garaaw la mbokk yi jullit kenn du ko bañ wala tajal bul def fii qulubina suñu xol yi xillan benn mbañeel lilladina amanu billahi aleykum bu ñuy fàttali kenn ku ci nekk bu mu xool kenn bul ma xool man mi wax waaye xoolal sa bopp yow est ce que boo nattee sa xol bi am nga benn mbañeel wala xeen boo dencal sa bokkum julit ak kum mën a doon nag ak lu mën a def ci caay-caay bokk na ci ajana li ko tax a neex mooy wa nazaana ma fi sudurihim min ghil lépp luy tax nit di bañ nit appareil boobu suñu borom daf koy démonter sànni nga doog a dugg ajana parce que bañante amul biir ajana ñun mbokk yi est ce que bëggante nañ dëgg dëgg dëgg dëgg est ce que bëggante nañ bëggante gi war gis nga saxaaba yi malgré que yi doon dox seen diggante yépp kenn ñemewut a bañ ab julit parce que yaa ngi ragal bañ koo xam ne yàlla da koo bëgg suñu borom ni man diw bëgg naa ko yow nga taxaw opposé wu ne bañ naa ko loolu lu garaaw la mbokk yi lu wallahi lu mën nga ci yàqule sa doo ko yëg parce que suñu borom kat su bëggee nit danaan yaa yaa yaa danaan jibril bëgg naa diw wax ko waa asamaan waa asamaan ñëpp daal di ko bëgg fa wudaa lahu alqabul loolu ump na la ump na ma comme xamoo kan la ci mbooloo bi amaan na kooku mi dëgg la da ngeen a jotee wala dafa am lum la waxal wala dafa am lum la lu mën a xew dama ni la waroon sunuy diggante mooy ab jullit moom kenn du ko xeen gis ngeen ci dund abu darda waxoon naa ko jullit kenn du ko xeen kenn du ko bañ déedéet waaye mën ngaa bañ nag lam def yooyu yëpp nag bokk na ci li la ciy dimbali mooy lépp loo xam ne dox na ci sa digg gis nga sa mbokk jullit mën ngeen a séq ay wax ba ay dënn jóg waaye bañeel beneen affaire la mën na laa tooñ ba nga mer waaye bañeel bañeel bañeel beneen affaire la mën na laa siiwalal sa secret mbokk yi ñun bëggantewuñ de nun ñi billahi bëggantewuñ maa la ko wax te ay firnde yu wér nag laay wax nun ñii man mii di wax mucc ma ci yéen mucc leen ci nun nun nun nun danoo soxorante danoo soxorante de nun kenn bëggut sa morom di avance waaw yow yàlla moo jël diw yaa ëppale moo la ëppale wërsëg moo la ëppale ay bien moo la ëppale nangam waaw kooku yow boo ko bañee koo bañ suñu borom def def suñu borom undur kay faddalna ba'dahum ala ba'd xoolal yàlla mu ni nee na ni ma gënalee nit ñi rek kii sut kii kii ëppale kii kii nangam loolu yàlla mu ni maa ko def kayfa faddalna la maa ko def wala al axira al axira akbaru darajat fala mayee gën a ëppee wa akbaru tafdilan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq bu dee mbiru wërsëg suñu borom mu ne man la neex ma jox nit ba ba mu giijal xañ diw loolu maa ko def man faddala ba'dakum ala ba'd moo ko def fa man ladina fuddilu bi raadi rizqihim léegi kon nit ki lan moo tax ñun bëgguñ bëgguñ bëgguñ sa bokk jullit avancé ci sa kanam gis nga nun nun bëggante wun de nit ki am benn ay bien yu baax nga yéene ko ko macha allah hi yaa xii li yal na yàlla barkeel la te fekk nag lu sérieux lay doon waxuma ay affaire sentiment yii di siiñ li waaji naan fa laytu yabdu naabuhu is yaxdab laa yaxurannaka man tabdu basaasatahu minhu ilayka fa inna summa fi lasal bul gis ni rek mu lay siiñ rek la wax nga yaakaar da laa bëgg mu ni déedéet mu ni gaynde bu meree da nga koy séen muy siiñ di meleste ko mu ni kontaanu de da lay bëgg a xalaat loolu moo nekk suñu biir ñun mbokk yi bëggante wun de ñun jullit ñi ñëpp nag laa wax jullit ñi bëggante wun de sujjóot ah allahu akbar diw de lim am démb waa yàlla na ko yàlla barkeelal kan moo mës a sujjóot mu ñaanal mbokkum jullitam ah kii de yàlla na yàlla jàppale ko ci poste bu bees bii mu am ah kii de yàlla na ko yàlla may nu mu tuddati wërsëg ci li muy def ah kii de yàlla na ko yàlla barkeel moom mu am li mu li mu bëgg kii de matériel bi ma gis moom de nangam nangam bi yàlla na ko ah waxuma kenn du ko def de waaye daanaka zéro virgule un pour cent la kooku du dara kan ci ñun mooy koo xam ni sa mbokkum jullit bu tàbbee ci musiba affaire bi da lay metti da ngay am tiis comme moom ba yow dafay mel ni sax yow yaa am problème bi déedéet bal dafa mel ni sax yow da ngay yàkkamti ñu sa mbokkum jullit saa boo ko déggalee lu safaan day mel da nga ciy kontaan déedéet da nga war a mer ci loolu parce que yow la mooy yow wala talmisu anfusakum bul sikkal sa bopp yow kan mooy sa bopp borom xam-xam ñu ni li tax yàlla wax sa bopp sa mbokkum jullit la ñuy waxal waaye sa mbokkum jullit mooy yow yaay moom sa bokkum jullit yaay moom wala talmizu anfusakum bu leen xas seen bopp bu leen ayibal seen bopp ndax seen bopp mooy sa bokkum jullit mi ngay ayibal yaay moom yaay mooy yow gis nga tey bu ma déggee lu ñaaw sama bokkum jullit damay taxaw défendre ko loolu du dëgg kenn kenn nag bu ma desee nag maag yow ma wéet ak yow nag xëccile ba nga ñëw nag ma wax la lu mel ni kaani xeeñ jullit noonu lay def saa buñ la waxee lu mbokk ñaaw sa mbokkum jullit bu ko gëm bul may seytaane buntu ma déedéet bu ko gëm waaye nag boo ko gisee nag wax ko la nga ko war a wax képp ku ñëw di la wax lu ñaaw sa mbokkum jullit freiné ko parce que kooku mooy yow yaay moom bépp waay koo xamante ni mi ngi wax lu yàq deru mbokkum jullitam dalal ca kawam parce que kooku baaxul gis nga boo amee looy wax da ngay dem nga wax ko diw moom waaye bul ñëw di ma ko wax man mbokk yi nii la nii la gaa yi dund dee démb waaye boo xoolee ñun ni ñu dundee ci nga xam ne ñaan googu benn même buñ koy jàng ci alxuraan bi defe nañ koo gëm muy ci ñun ci góor ñi muy ci jigéen ñi bëggante gi amut jàppalante gi amut dimbalante gi amut kal bunyaanu comme miir bi nga xam ne lii day dimbale la ca des loolu tamit amul déedéet dañoo war di dimbalante di jàppalante di muñalante faw ñuy muñalante ndax ay nit bu ñu nekkee faw seen compte di am mënul ñàkk mbokk yi xoolal saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain fenkonte yu dul jeex ba da ngay jàpp ni seen dund gi yëpp fenkonte la woon te teewul yàlla tagg leen ndax fenkoo googu mbirum doomu aadama la waaye taxul kenn dencal en sa morom commencé ko ci saxaaba ya Abu Bakar ak Omar ibn al-Khattab ñaar ñi nga xam ne ñoom ñaar waruñoo mën a fenkoo kenn ku ci nekk fenkoo daal ba dañ ko ratt poñe ratt poñe laa wax Abu Bakar ni ko maala poñ baalu mu ni ko baalu ma la laa wax ba ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar yonente bi far ci Abu Bakar ndax it nag Abu Bakar wax dëgg yàlla nag def na effort ndax même bu tooñu sax nangu ni maa tooñ yonente bi dañ ah sama waa ji nag tey daa jéngu muy Abu Bakar Abu Bakar ni ko man même bu fekkee maa ko tooñ ñee naa ko baal ma mais mu ni ma baaluma la yonente yàlla bi ne damaa bëgg sama waa ji ngeen bàyyi ko tout tranquillement ndax kat ba may topp kenn topp ma ba may dimbali kenn dimbaliwu ma Omar nee na keroog ca laa gëj a jot ak Aboubacar Siddiq xoolal Ali ibn Abi Talib ak ñenn ci magu saxaaba yi ñi nga xamante ni keroog bi Ali di xeex ñoom kenn nangu ko jaa jee jàppale parce que ànd ñoom moom ci position waaye nag kenn mësu koo waxal lu ñaaw Fatima mere na Aboubacar Siddiq ab diir ndax dane ko sama baay daa dee nañ ko miraas yéen ñii bu seen bàyyi deewoon dañ leen di miraas aw bakar ni ko yonent bi ne ab yonent kenn du ko miraas mere na ko ci juróom benn weer ba mu xëy faat am na ñuy wax ne sax jot na koo jéggalu ci biir borom xam-xam yi xoolal Yaxya ibn Ma'in Ahmad ibn Hanbal demoon nañ ba def nii ay gaayen keuse mexnetu xalqal Qur'an dox seen diggante ba ak Ahmad ibn Hanbal ibn Ma'in romb na ko ni ko salaamaaleykum faalewu ko waaye lam def ba léegi taxut een ñëw de kon unité yi dana ñëw ci suñu biir waaye nag eenante du am te dañ doon sujjóot di ñaanalante gis ngeen abu dara ne am na ñetti téeméeri xarit yoo xam ni damay sujjóot di leen ñaanal Shaafi'i di am naa juróom ñaar fukki soppe yoo xam ne saa bu ma jullee ñaanal leen mbokk yi ñooñu bañ doon dundee noonu ci la dundin gi neexoon noonu de jàpp naa ne man mii di wax maa gën a xam sama bopp kenn ku ci nekk ci yéen it kadalik aaya jii de gëm naa ne ku nekk ñun war na cee taxaw laa tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu yow sunu borom bul def mukk benn mbañeel ci ñu gëm yàlla léegi nag foofu nag nga xool ba xam yow est ce que sa mbokk jullit di bëgg nga leen est ce que liñ am ci ay damay waxtaan ak benn mbokk sànq wallahi daf ma wax wax ju ma marqué ma ne ko léegi dama jaaxle lu tax boo xoolee ci àll bi ci biti réew mi am na yenn yoo xamante ni kéemaani suñ borom la waaye mën naa feeñ ba def ko internet te du am problème waaye bu doon fii Sénégal la bu doon ab gone la wala yooyu day daal di dee léegi ci saa sa ma ne ko man affaire bi lu tax gis nga la ma toog daf ma marqué trop parce que laaj la bu ma amul woon tontu man mu ne ma fii dañoo soxorante nit ku ñuul dafa soxor dafa iñaan ñun nit ñi di dañoo iñaanante ma joxe ci benn exemple rek benn gone tey bu yàlla may mu mu daal di teel a mel neen ne rek ci ay kéemaan gis ngeen ko ci internet bi ay tubaaba ci doomi naan rek du leen wàññi dara waaye xool leen fii suñu gone yi ku ni mel da ngay gaaw a dee ci misaal laay joxe rek ci li ëpp li ñuy gis donc loolu nag moom du am attekaay lu waral loolu mooy nit ñi dañu soxorante kenn du yéene sa morom avance ci sutan saa boo gisee sa mbokkum ji yow tey kii maa ko doon dimbale di ko dimbale ba mu xëy tey ëppale ma ah waaw ku ko def ndax moom moo ko def waa ji mën ngaa dikkal di ko may ay ñaar dërëm ak ñett dërëm mu xëy xëy tey mën laa dimbale sax yow yooyu yëpp def defi suñu borom la gis nga nag soo bëggee noppal da ngay war ba bi ma qasama allahu lak da ngay kontaan ci li la yàlla def te kun agna naas la ca des nag mooy nga di ko ñaan sa borom yàlla dimbale la ba benn xeen bu mu am ci sa xol jëm ci sa mbokk jullit yi la ca des nag mu nekk effort la saa bu ma gisee sama mbokkum jullit am lu baax lu mu metti metti ma jéem a fudd sama xol sunu borom mu ne wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad bu fi nekk nit am dara nga naan ni nangam nangam di ca wax di ca interprété déet sunu borom mu ne wasal allah min fadli yàlla moo ko jox ci ngëneel yi ñaan ko moom ci ngëneel yi moom mi ko jox waaye bul ko ko añaanee bul ko ko soxore bal ñaanal ko mu am ca la nga xamante ni moom mooy baraka ñu ngi ñaan sunu borom mu defalal ñu tawfiq te tàggatal ñu sunuy xol ba ngëm mën cee tàbbi yàlla yàlla musal nu een di am ci sunuy xol jëm ci sunuy mbokki julit wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain